Euh, salaamaaleykum macha allah sama mbokk yi di leen ziar bu baax a baax a baax a baax del suwaat ak yéen ci seen euh, seen canal sama naa booy noonu Khady Thiam tey comme d'habitude xëy na fan yi dugaluma dara mais nag ñu ngi woon ci yoon bi di togg donc euh, bagage yu bees yu ñu ñëwal tàkk moom mu ñëw fi ak suñu suñu catalogue bu bees bi avant boobu dama leen di gën a kii rek ñaan eh, baaraam yi muy jëm kaw parce que mooy arrangé liggéey bi macha allah eh, di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar ah, di yeesal sama joxeel ci yéen macha allah tabarakallah donc comme xam nga ni eh, suñu kanaal bi moom dañuy préféré def yëfu jigéen voilà feete wuñu fenn bu ñu neexee ñu dugg ci waañ bi bu ñu neexee ñu dugg ci affaire bopp bi karaw yeeg yooyu nu mu demee. nu ñuy suñu karaw ak suñu karamu doom yi ci kër gi bu ñu neexee aussi ñu euh, ñëw ci nu ñuy euh, produit yi nga xam ne moom la defaree suñu karaw doom yi ak produit yi nga xam ne moo baax ci suñu yaram ak euh, produit yi nga xam ne moo baax ci suñu yaram borom kër yi macha allah ñoom tamit dañ leen war a boole ci toppatoo bi donc vidéo yi passé yéen a ngi gis maa ngi doon liggéeyam ak benn impresa bu ñuy wax. LR moy ILR bu Allemagne ay produits allemand la donc euh, produit yu mucc ay la ndax man li ñu naan nettali ci gémmiñu borom la dàqe dal parce que man man ma njëkk utiliser produit bi ma duggee ci ci euh, ci projet bi di liggéey dama njëkk tester bima tester lu tolloog 2 mois xol ba xam parce que man euh, ndoxum city moma ma bu ma xoolee gis ni euh, produit yi baax na ma ne ah naa naa engagé euh, laawee ko biir laawee ko biir suñu suñu mbokk jullit yi euh, parce que ndoxum siti nekk na lu nga xam ne dafa sonal doomu aadama yi voilà ci parti bu ne lay génnee ñu tuddee ko allergie wala nga tuddee ko leneen mais lépp lool la donc li ci ëpp solo ba ëpp solo gën ko gaaw a faj moom mooy gel yi nga xamante ni si ileer daf ko am genre gel yi am nañ ci bu nekk gel bi moom laay njëkk a commencé ak yéen ci sama vidéo tey bi wax leen ko mi ngi nii euh, sivera aloe vera drink xel mi ngi nii donc bii euh, ay fruits lañ ko defaree muy lu am solo lool ku ne xam na ne fraise bi ak euh, ak aloe vera donc boo ko boolee ci benn ci benn gel bu nga xamante ne si dañ koy naan gel bu ñuy naan la boo ko naanee luy ndoxum siti sa yaram daf koy daf koy dindi et puis euh, lu nga xamante ni que si euh, daf lay jariñ daal dafa am ay vitamines yu baax dégg nga ko nii mu ngi nii am na aloe vera mm, aloe bi am na yeneen euh, yeneen yeneen yeneen sodium bu nga xamante ni que si daal yu baax la ci yaram xam naa ci gàttal nii duñu mëna nek di lire benn bu nek mais dal lu am solo la té man te nettali ci gën a gëmuñu borom la daqé parce que man essayé naa ko gis na ci njariñ bu nga xamante ni que si sha allah li ci ëpp solo ba ki ba ëpp ci solo moy ndoxum city xam nga ndoxum city mom ci dérèt lay nek wa dérèt mom moy lu nga xamante ni que si euh, lu ci nek day xassan ji génn sa yaram la mu génn ci parti bu nga que si du du yomb surtout ñu ngi jëm ci jamono été tàngoor bi di ñëw boo amee ndoxum siti mu nekk ci sa ci sa loos wala mu nekk ci beneen partie te ndoxum siti fi muy génn ay partie yu la donc li ci euh, te te jàngoroom daanaka xasanu la te xasan dafa xaw a dafa xaw a metti ci ci nit parce que ku ko dundul rek mënoo ko xam te man dama ko doon dund dugg ci projet bi dama doon xasan sama yaram bi bay ànd ak moom de di lox donc xasan boobu yàlla dimbal na ma léegi set na wecc ah mm, nga commencé di am sa ay we bu njëkk mosuma woon am we mais léegi samay we ñu ngi commencé dëgër samay tànk xaratul te dafa ma tànk daf doon xar ba ba jiggi day wax xam nga sama sama sama piel sama yaram daf couleur bi kii bi temps bi daaw ma neex te loolu yëpp ndox mu siti la loolu yëpp si xeetum ndox mu siti la mais bu ko yàlla jeexale jeexal na ko donc mooy loolu ah li ma leen doon gën a indil tey jii nag sama produit yi xam nga dañu am benn catalogue bu bees catalogue bi macha allah lu nekkan ci voilà ñun am nañu ay ah, ay produits yu nga xam ne produit bébé la ku am sa bébé lépp a ngi fi te lii moom gaam la bu nga xamante ne c'est crème beeg shampoing beeg douche euh, body euh, body lotion bi ak euh, savon bi ñu koy sangeek yépp am nañ même mm, semaine passée man ko jëndal sama dom bu ndaw bi allah daf ko arrangé trop mooy euh, pâte dentifrice xalé yi mi ngi ni bitig bi dal mom ku soxla même bo soxla pour dugg sax man mën la dugal ngay jënd sa ay produits di dugal sa biir kër kër gum dugg rek dañ ci gis euh, avantage parce que parce que lu bax la ci doomu adama donc comme tangor mi ñu am nañ ay lotion sol voilà mhm. bi bima ci gëna neex nak moy bi gis ngeen pâte dentifrice bii nii lu yéeme la démb am naa ci benn retour bu nga xam ne daf ma neex nag sama benn tonton laa ko jaay mu dem ñëw dikk ni ma pâte dentifrice te pâte dentifrice cherul cherul lu yomb la yi ay 7 euro 50 xaw ma euh, cherul boo ko day jël ci bitig bi yow direct parce que ku jokkoog man te loolu aussi mën na nekk ak foo mën a nekk mën naa la jox sama lien nga dugg ci bitig bi nga jënd ñu indil la ko sa kër te doo ci fay dara bu ëppee 50 euro envoi bi gratis la donc euh, ku bëgg sa ay produits kër lu mel ni ki euh, pâte dentifrice bii nga xamante ni que si aloe vera pasta aloe vera lañ ko defaree moom daal daf ci am ay njaxas yu nga xam ne ci biir dafa yéeme macha allah donc euh, pâte bi maa koy conseillé képp ku nga xamee ni yaa ngi ci sama canal bi di ko xool nga jënd ko parce que boo ko essayé doo ko rëccu. li ma leen di gën a nettali mooy euh, avant tout man dama ko utiliser wax naa leen produit utiliser naa ko deux mois soo koy commencé jaay donc bi ma ko commencé jaay xam naa nu mu demee pâte dentifrice yi xam naa ko day leeral bañ day day euh, day euh, weexal bañ ça veut dire que benn tâche du nekk ci sa sa biir bañ sa sa kaw yi bañ ba pare day dëgëral sa bañ bu fekkoon ne sa bañ dafay metti wala dara daf ci baax parce que ay garab lañ lañ ko lañ composé yu nga xam ne xam naa du xaj ci vidéo bi pour ñu mën a détailler garab bu nekk lu mu doon mais en plus sama jëkkër euh, sama borom kër papay xale yi jour bi mu ko njëkkee utiliser dafa ne man daal seen pati bi gis naa ci kéemtaanu yàlla parce que euh, macha allah donc euh, sama bëñ daf doon metti loolu sama borom kër moo ko wax sama bëñ daf doon metti mais bi ma ko commencé di brosse rek laa gis ne sama sama gémmiñ gi dafa commencé di Euh, sama bëñ bëñ yi dafa ko ma métit bi dafa dafa wàññeeku daal donc muy wax naan ma baax na baax na baax na ba ma obligé dugg nag ci ci business bi carrément démb en plus euh, beneen sama beneen tonton di ko fekkaat mu fekk jaay naa ko ci semaine passée mu utiliser ko semaine prochaine donc bi mu ñëwee li mu ma njëkk a wax mooy man suma lekk sama côté côté gos bi mais à part ak tey ak sa pâte dentifrice bii nii damay lekkee ñaari boor yépp parce que benn boor benn boor bi bëñ yi daf daan metti ba sonal ko donc euh, ma am ci ñaari retour yooyu ma kontaan ci torop so di ko conseil képp ku nga xamante ni que si yaa ngi seetaan sama vidéo bi euh, pâte dentifrice bi lu am solo la aloe vera pasta lañ ko defaree jaxase ci ay njaxas yi nga xam ne daal kàll baax na ci ci gémmiñ

am nañu diw bopp bu nga xamante ni diw bii nii ñi nga xam ne dañu am problème mu karaw wala seen doom yi seen karaw jafe lijjanti walla mu xaw a mm, euh, euh, seen bopp mu day dagg daal maanaam xale buy xale bu nga xam ne boppam day dagg wala euh, karoom di cheté affaire yooyu léegi buy jël diw bii nii parce que juróom-ñaari diw sept huile lañ dajale fii nii sept huile mi ngi nii boo ko gisee ni sept huile lañ fi dajale yi nga xamante ni ki diwul koko ngi ci diwu yeneen kii ngi ci xam naa sama photo yi bu ngeen ko xoolee ci biir canal bi da ngeen ko gis euh, mu baax lool ci ci bopp xale man dama koy utiliser pour sama xale yi mais macha allah ak ak yaay yi aussi voilà comme li ma leen waxoon léegi am nañu ay euh, euh, san lotion pour ki bi jóg ki bi jubal si léegi berano bi dëgmal si voilà en même temps am euh, nañoo am nañu euh, frotté voilà am nañu ay frotté fii daal dafa bëri bagage ileer moom macha allah dafa bëri ay bagage am dafa bëri ay bagage am nañu euh, benn produit bu nga xam ne moom fan yi génn macha allah bu ma paree ci pâte dentifrice bi ki laa jëm si bii nii dafa am góor am jigéen gis ngeen ko nii sama sama paquet bu yànj bu bu rafet bii macha allah bii nii ay kéemtaan la maanaam collagène ku ko dégg euh, ku ko ku ko xamul dégg nga ko ci gàttal mu am bu góor am bu jigéen léegi nag man bu góor bii laa leen di présenté tey macha allah ak bu jigéen bi bu jigéen bi élixir five in one lañ koy wax buyeto élixir donc kéemtaanu yàlla la te gis nga li ma leen di wax chaque jour weddi gis bokk ci ndax man macha allah maa gisal sama bopp maa maa eseyal sama bopp ba xam résultat bi boo ko gisee nii ay bitel la yoo xam ne danga koy ubbi voilà mu nekk 30 30 bouteilles ci biir. ñi may conseil li may conseillé samay client nag mooy buñ koy utiliser nañ ko fexe ba euh, miinal ko seen yaram pour 3 mois 3 mois yi mooy da ngay utiliser paquet bi yëpp ci durant ci ci un mois bi daal léegi mu ngi nii boo ko ubbee nga xool ko ci biir da ngay gis ne affaire bi ay euh, ay bouteille la ba tey bii nii suba soo yeewoo danga ciy jël benn boo ci jëlee benn tey booy ndekki par exemple yaa koy wutal heure bu nga xam ne heure fixe lay doon heure ndekki wala heure añ voilà nga jël ko ci bëccëg bi wala tàkkusaan noonu donc boo ko jëlee bu le lendemain nga jëlaat benn ba mu mat fanweeri fan bu matee fanweeri fan nga jëlaat beneen paquet fexe euh, respecté ko ba mu mat 3 mois danga ci gis. changement ci sa biir yaram changement bu bu bu bu la bett daal parce que dana dëgëral sa karaw dëgëral sa yaram yaram bu nga xam ne dafa commencé woon a ras daf koy defaraat hmm, ba sa ba sa yaram gën a gën a gën a nekk comme yaramu xale ba pare li ci gën a yéeme benn secret bu ci nekk bu nga xam ne day xatal jigéen loolu moom dama koy wax directement rek ñëpp déggandoo ko te jigéen moom loolu daf ko intéressé parce que euh, ci wér-gu-yaram la bokk jigéen bu demee ba ba am euh, njaboot amati njaboot donc yaramam day ubbeeku donc kon bii comme day xatalaat jigéen day dellawaat jigéen na mu nekkaat ndaw mu nekkaat xale yaramam di di di tëjuwaat loolu lu am solo la te bala nga ci xam résultat bu baax nag nga essayé ko ku ko essayé dootoo ko bàyyi lii laa ne woon naa leen ko indil ba pare yokk ci bii nga xam ne mooy bi nekk ci suuf moom nii la mel moom moom tamit ay euh, ay bouteille la yu nga xamante ni que si comme élixir bii nii ñoo yem li ñuy def waaye nag comme bu góor bi la te ku nekk ak sa ak sa ak sa méthode ak sa yaram waa ak li li nga xam ne moom nga ci moom tamit même chose waa ji daf koy daf koy delloosiwaat mu nekkat gone da koy mayaat cawarte da koy mayaat mu gën a mu gën a jàpp formam normal li ci gën a yéeme ba gën ci yéeme mooy dafa baax ci problème mu ngóoral ngeen baat ma ngeen baal ma baat bi voilà day gën a yokk waa ji force lu yéeme la lu yéeme la am na ñu ko essayé ñu nga xamante ni que bonk ñu ngi indi ay euh, ay wax yu nga xamante ni que macha allah am nañ ci euh, njort bu rafet ni képp ku ko jënd rek da nga dolli da nga jënnaat voilà parce que euh, lu lay may kattan di la may énergie di la jàppale sa yaram ngay gën a am force ku ne xam na ne léegi liggéeyu léegi day day metti ci doomu aadama yi ndax te foo toll yaa ngi daw ak njaboot ak kër donc euh, daw boobu noonu foog nga am lépp ay produits yu nga xamante ni que si dana gën a defar sa yaram dana la gën a mën a bàyyi nga relax ah ba pare euh, minus stress ci niñ koy waxee chaque jour. yalla nag boo ko booleeg di ko naan di boo boo ci boolee gel bii nga xamante ni que si aloe vera la bu ñu booleeg ay fruits fruits yu riche yu nga xamante ni daanaka moo gën a riche euh, orange parce que dañuy euh, quantité euh, vitamine bi ci nekk moom moo ëpp bi nekk ci ci orange donc mooy loolu lii daal laa ni woon naa leen ko indil ci sama vidéo bu gàtt bi ah am na defe naa ni thermolotion tamit dinaa leen ko wanaale thermolotion boo ko gisee moom mooy ni ngi ni sama saak bu taaru bi sac bii même dañ koy jaay on dañ koy jaay nii am na yeneen affaire yu ci xaw a jóg nii sax parce que mooy loolu waaye euh, ku ko bëgg mën naa la ko wutal bu ko defee saag bi mën nga am sa lépp mën nga am sa thermolotion mën nga am euh, ñetti doomu pendanaari comme dañ koy waxee thermolotion mooy bii xaaral tuuti ku ma gën leen a présenter suma saag bi après am na ay diwu kanam am na ay diwu yaram dama ne woon rek naa leen indil tuuti ngeen xool Eh, ma ñëw ak yéen ci thermolotion bi thermolotion moom benn euh, foroote la ci gàttal dañ ko tuddee raay mu sedd raay mu sedd loolu mooy foo ko diw fuy metti rek day sedd ci si loolu mooy thermolotion macha allah gis nga thermolotion bii nii dafa am mante ba pare euh, sa yaram moo xam sa ndigg moo xam sa digg ginnaaw moo xam sa say tànk say oom fi mu gën a aay nag mooy tànk yu metti ak oom yu metti moom da ngay diw rek mu sedd ci saa si yàlla nag boo ci boolee di naan gel bi gis nga gel bi bëri na nag ay façon gelam am nañu gel bu nga xamante ne si sivera ah mm, drink xel bu nga xam ne sivera am na bu nga xam ne dañ ko boole jinjeer waaw am nañ beneen bu ñu booleeg orange am na beneen bu nga xam ne te xeetu fruit yu baax rek lañ koy booleel donc boo dee jël sa frotté bi di ci diw di naan sa gel bi da nga xëy yax doot la metti man fii may waxee ak yéen nii doon naa toog ay jamono guddi du ma mën a nelaw sama ndigal day metti sama tànk yi day metti wante damay góor góorlu rek di naan ay garabu tubaab yi xam nga mooy loolu mais bi depuis ma jot ci produit yi ba nëgëne si presque mën naa ni garab benn garab naanatuma ko wax dëgg yàlla wala c'est rare ma koy naan donc euh, ñuy góorgóorlu te aloe vera ku nekk xam na ko jamono ji ñu moom aloe vera ku ko xamul koo ko wax mun la xam naa ko wala utiliser naa ko wala kii mais nag euh, roy du nuroog piir mën na am tamit euh, aloe vera yëpp bokkuñu yem voilà ku nga xam ne mosoo utiliser aloe vera hilaire bi nga xam ne ay allemand ñoo ko defar allemand yi ku nekk xam nañ leen ci ñàkk caaxaan ñoom duñu ay nit ñu nga xamante ni que si dañuy def dara ak broole ko caaxaan li ñuy def yëpp day leer macha allah. donc dañu wax sax ba ci xaju allemand sax moo gën a ay xaju xaju kii donc nañ dañu xaj bi gën a ay dañ koy tuddee berger allemand kon bu ko defee allemand yi seen seen seen ay produits yi macha allah amuñu tappale daal macha allah aloe vera bi seen dëkk nii noom euh, wax nañu ñu ngi koy bayee Brésil bu ba ñëwee ay bañ ko transporter mu dem euh, Allemagne ñu dugal ko ci ay euh, ay machines yu yu yu set yu sell yu nga xamante ni que si mucc na ayib daal travailler ko ba mu normal dana am nag seen yeneen ay vitamines yu ñu ci boole ah, fexe ba mu jariñ ci wàllu euh, faj yaram lu ko demee ay crème am nañ yeneen crème xam naa du xaj ci vidéo tey bi mais dinaa leen ko indil ci beneen vidéo bi ci toppaat li ëpp solo ba ëpp solo ma indiloon leen ko tey jii mooy euh, pâte dentifrice bi mooy mooy bii voilà pâte dentifrice bii nga xamante ni si moom sa bëñ bu dee metti boo ko ci boo ko ci am na ñaaru ñu ma ko wax ñu nga xamante ni seen bëñ da doon metti ñu def ko ñu ñu brossoo ko donc day sa gémmiñ ba mu set voilà raxas gémmiñ ba mu set ak euh, euh, élixir 5 bii nga xamante ni que si moom jigéen yi ñoo koy jënd li ma ci ëppal solo ci video tey bi mooy ñaari produit yi ak bii nga xamante ni si bosu góor ñi la day dëgëral góor te daf lay may kàttan te daf lay delluwaat nga mel ne gone te am na ñu ko essayé ba wax ko voilà. Eh, am na suñu benn marraine bu baax mu ko bu ko tuddee Ngora ngoor a King moom mooy euh, wax dëgg yàlla day day day dëgër day dafay dëgëral dafay dëgëral góor daal ci kàttan yépp am nañu lii ñuy wax Z-Guard Z-Guard léegi jigéen ñi nga xamante ni que si tamit yépp suma suñu bitik yi la am man am naa bitig bu nga xamante si bagage yi tuuti laa leen ci wan ñetti produits ñeent rek mais am nañ fa ay cent et quelques produits yu nga xam ne lépp day jariñ doomu aadama képp ku nga xamante ni si yëf yi intéressé rek boo jokkoo man ci sama numéro téléphone bii nekk ci suufu pantaaja bi man dinaa essayer nga am ci Z Garde bi nii broche la bu nga xamante ni que si euh, day euh, day raxas kanam ba mu set wecc am na produit bu muy àndal spécial produit boobu noonu boo ko ci defee daal di bomb sa kanam ba mu set wecc daal di dégg jàmm boo bombee sa kanam ba mu set wecc dégg jàmm macha allah macha allah mbokk yi di leen nuyu bu baax rek di leen gën a ziar di leen wax ne tey jii moom waañ bi dañ ko changé def ko yeneen def ko duwal leen fii nag ci produit ileer yi présenté waa leen leen suma suma catalogue bu bees bi nga xamante ni si am nañ nine master am nañ mine master am nañu am nañu lépp daal parfum yi nak mom bo diké xamna benen vidéo ma andi len ci parfum yu neex yi nga xamanteni fan yi lako guéné pure bi set bi sha allah ñi nga xamanteni ci dañé yor sen borom kër yi mën nañ ko jëna di ko monsieur yi ah ku bëgg tamit man bo ma woyé dina xol noo def ba nga am ko li moy crème yi ma len doon expliquer sank nga xamanteni si dal mom wax deug yalla mi ngi fi nekkal jabot gi te tabaarakallah macha allah lii laa ne woon naa leen ko indil partagé ko nii partagé ko ak yéen ci sama kanaal bi ci seen canal sax laay wax parce que canal bi yéen ko moom mooy Khady Thiam Té bu leen fàtte baaraam yi na jëm kaw et puis euh, mooy loolu voilà nuyu leen ziar leen ndokkeel leen te di leen indil yeneen produits yu bees yu jógee Allemagne ñu defar ko ci defar bu sell macha allah. Eh, bu ngeen ko soxlaa rek wala am ngeen possibilité pour dugg ci sama biir bitik bi nga xam ne moom la may allemand yi ubbil ngeen jënd ci sama sama bitik ñu yónnee leen ko li ngeen di jënd pour fàttali leen ni bu passé cinquante euros envoi bi sax du ngeen ko fay da ngeen di dugg yaa ngaa soxla shampoing d'accord duggal nga jënd dangaa soxla euh, savon euh, kii gommage de corps duggal nga jënd dangaa soxla pâte dentifrice duggal nga jënd sa doom dafa soxla pâte dentifrice duggal nga jënd boo jëndee dajale ko ba mu mat dañ lay defal système mu jënd bi mu ngeen jox ko man dinaa leen expliquer dañ lay defal benn carrito loo jënd dugal ci karo bi boo demee ba mu wóor leen lii mat na 50 euros wala ëpp na 50 euros rek nga daal di koy ok daal di koy fay sa kart donc euh, foo mën a nekk ñu daal di yónnee sa bagage nga jot sa bagage léegi nag euh, jàmm xew kër yi neex donc kon jàmm ak salaam. incha allah dañ jokkoowaat ci beneen vidéo mbokk yi nuyu naa leen ziyaar naa leen marhaban bikum jërë ngeen jëf